dafa am benn situation boo xam ne dafa xew président de la république dafa génn télé ñëpp di ko seetaan képp koo xam ne ci Covid 19 weer wu dee bu jot war nañ la fay 150 francs boo xam ne dañ la pour sacrifice yi nga xam ne koy def donc bi nga Covid bi est na première vague bi motivation yooyu ñu ngi ko waaye dañu seetlu ne bi ñu ba ci deuxième vague bi fin deuxième vague bi ba troisième vague surtout bi ñu yegsee ci mois de pour certains motivation yooyu dañoo xëy xëy kenn tout ko mu nekk situation comprendre parce que non seulement fayuñu ñu mais amuñu benn yoon boo xam taxaw nañ ak agent yooyu nga xam ne ñoom la ñu war a ñu expliquer leen raison yi tax fayuñu leen donc ñu gis ne situation manque de respect manque de respect la ndax dafa am ay sacrifices yoo xam ne dañ ko def te yombul mooy bi nga xamee ne peuple sénégalais bi yëpp jaaxle nañ bi nga xamee ne même ay agents de santé comme ñun jaaxle nañ ragal nañu dem au chevet des malades ñun ñoo sacrifié wu am conscience patriotique dem ne dañuy xeex quitte à ce que ñu bàyyi fa suñu bakkan waaye dinañ fexe ba population bi jangoro bi nga xam ne moo leen ñëwal du leen gañe ñu nekk ci loolu pendant des des années parce que mat il y at léegi trois deux ans et plus donc motivation yoy di tardi mu am ben sitin bo xam amalon nañ ko bintu ministère bi ci joggé ñu dalal ñu biir ministère xamal ñu ne motivation yi li taxone ñu arrêté moy xaalis bi nga xam mom lañ ko doon fayee xaalis bobu mo manqué mom lañ amatul en fait mais ñu xamaloon nañu comme demee na nii ci délai bu gatt ministère de la santé dinañu restituer l'ensemble des mois yi nga xam mom lañ ñu yoré waye ñu gis né depuis fait ñu waxé lolu ba que tay la mot weer amut benn somme bo xam versé nañ ñuko té li gëna doy war moy hôpital yi ñu ngi leen mois lañ leen yoreel hôpital bu melni mois manam année entière fay ñu leen bo hôpital bu hôpital bu principal ñu cinq mois nous yow ñooñu nga yoral leen ay mois nga ne leen mois nga après le reste bu ñu defee le budget 2022 bi di nga leen fay li des ñuy laaj ministère de la santé nous nga xam ne contrat yi dañuy jeex au 31 décembre 2021 nan la ñuy toogee seen di ñëw di demander ministère alors qu'ils ne sont plus agents de santé Nous avons boo xam ne ñoom 2021 donc ñuy lancer appel président de la république pour wax ko ne ko motivation yi ñun ñoko mom moom ñaanuñu ko ko donc motivation yooyu ñu mom nañu ko fay te buñu koy fay bëgguñu mu resti mu def ko de façon graduelle nañu restituer intégralité somme yi wala buñu fay dara parce que buñu fayul intégralité somme yi tay conférence de presse lañu woté woote suba dinañu dem ci vitesse bo xamné mom mo gëna élevé parce que kat nekul problème yoy rek ñom ñoo am ci bir système sanitaire il y a des problèmes qui sont beaucoup plus dangereux te loolu xaaruñu ci ragaluñu jàkkaarloo waat ak presse bi wax len exactement lan moy xew ci biir hôpitaux yi donc waxoon nañ ko ñu ngi koy waxat. gouvernement Sénégal nañ def preuve de responsabilité nañ fay nit ñi sen xaalis nañ xol ci ñi nga xam ñu dañoo décédé Abdoulaye Diouf Sar bi nga xam tay amna am jotu dem ci champ politique bi Abdoulaye Diouf Sar bi nga xam amna am jotu def ay offre pour ay population néna Dakar ñu ngi wax sénégalais yi ñu ngi koy wax moom que ministère am ñu fay sax ay agent yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal fa la ñu toll tey donc nañu ressaisir nañu fay nit ñi seen motivation te arrêté ces campagnes d' intimidation lenn la ñu mën ci ñun mooy dàq ñu suñuy bërëb bërëb liggéeyukaay ñu ngi leen di xamal ne nag suñu xeex dàq ñu ci privilège boobu ñu am moo ci gën a ndaw et fu ñu mënti dem ëllëg bu fa injustice amee incha allahu dinañu woote presse te dinañ ko wax. santé du caaxaan ñu bàyyi santé bi ñuy foye nañu fay intégralité somme yi waxuñu encore une fois paiement graduel nañu fay intégralité somme yi et ce dans les plus brefs délais